1, a 3, 4, a 6, 30 laa compté ak préparateur bi. tourné seen wax ci ginnaaw. waaw.

Actuellement, on est